Euh, jóge marché HLM ñëw fii di leen di masawu coono bu baax a baax euh, di leen di gërëm ci seen disponibilité euh, di wëy di ànd ak convention des jeunes reporters syndicat presse bi ak ñoom seen ci ñaawlu li nga xam ne moom la takk der yi di teg journalistes yi di teg li nga xam ne moom mooy organe de presse yi ci violence ci dóor rawatina jigéen yi ñu ngi koy ñaawlu waat ba fu ñaawlu yem di interpeller le président Macky Sall ci ne Euh, jeexal na mais pare na na rafet rafet ci askanu Sénégal yëpp na rafet ci journalistes yi journalistes yi di wàcc ci terrain bi ndaxte xëy na bëri na ay journalistes yoo xam ne du ñu wàcc ci terrain bi du ñu mëkk grenade lacrymogène du ñu mos liif donc ñu ngi masawu journaliste de terrain yi naam journaliste yëpp ay jàmbaar lañu waaye journaliste de terrain yi góor ak jigéen ngeen may ma nag ngeen may ñu ñun jomaay euh, mais président ñu beral loxo journaliste de terrain jigéen yi ndaxte xam ngeen ne euh, ñu ngi dund la même chose que góor yi et vraiment ay jàmbaar lañu euh, félicitations à vous loolu bu noppee euh, coalition Diomaye président moo leen woo woon tey ne leen dañuy dem ca HLM particulièrement précisément marché HLM pour séddale fa li nga xam ne moom mooy suñu spécimen suñu bulletin de vote bi nga xam ne le 25 février képp ki ànd ak Ousmane Sonko. képp ki ànd ak Moustapha Guirassy képp ku ànd ak Maymouna Bousso képp ku ànd ak Ahmed Diallo képp ku ànd ak Aminata Touré képp ku ànd ak professeur euh, Mary Teuw ñaan képp ku ànd ak Dame ak ñoom seen képp ku ànd ak Pastef képp ku ànd ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye bulletin boobu ngay dugal ci urne bi le 25 février 2024 muy bésu élection spécimen boobu lañ doon séddalee euh, fële ca marché HLM gis ngeen ne bi ñu ñëwee commissaire bi ñëw na wax ak ñun bi mu ñëwee parce que xëy na boobu peut-être ñu si bëri ci yéen excès gu leen bi mu excès li mu wax mooy dama ñëw pour jox leen ordre ngeen jóge fi ma ne ko lu tax mu ne ma loolu mooy ordre yi ma ne ko mais monsieur le commissaire les député de Yewwi Askan Wi dañoo dugal benn recours ci conseil constitutionnel te recours boobu day ajandi dogal yi président Macky Sall jël dafay ajandi li nga xam ne moom mooy loi bu dëppowul ak constitution bi nga xam ne député Benno Bokk Yaakaar yi ak député wàllu yi vote nañ ko. ma ne ko kon ça veut dire que nous sommes en campagne électorale te bu ñu waxee campagne électorale dem saafonte askan wi dem waxtaan ak askan wi dem wax leen lan moo tax ñu war a votel Jomaay président dem wan leen ngir ñu min ko bulletin de vote Jomaay euh, président ndaxte xam ngeen ne ñaar fukki bulletin la donc ci la ñu avancé waaw bi ñu avancé nag gis ngeen ni ñu waa HLM teeroo. dafa mel ni waa HLM dafa mel ni askanu Sénégal jomaay président rek lañ doon xaar dafa mel ni askan wi dañoo namm jomaay président dégg ngeen fa sax ay yuuxu ñun Sonko la ñu ànd dafa mel ni tamit askanu Sénégal namm na bu baax a baax kii di président Ousmane Sonko ay président Ousmane Sonko bés bu génnee dinañ fi gis loo xam ne kenn mësu ko gis ay président Ousmane Sonko bu génnee mbooloo mi nga xam ne président Macky Sall bëggul àddina bi gis ko ci ne ñooñu ñoo topp Diomaye président ñooñu ñoo topp président Ousmane Sonko ñooñu ñoo topp Pastef dina gis mbooloo boo xam ne kenn mësu ko gis sur la planète donc mbokk yi waxtaan nañ ak euh, ak commerçant yi distribué nañ suñu ay. foofu la ñu bëggoon dem ngir jaale étudiant ndax ndaxte xam ngeen ne ci ñetti xale yi président Macky Sall faat boom am na si moo Gueye nekk fële ca ginnaaw raay. amoon na ci euh, Landing Camara Ziguinchor waaye itam am na si Ali alfa Tunkara alfa Tunkara bàyyee ko Dindi Felo bàyyee ko Kédougou donc bi ñu jógee HLM dañoo bëggoon dem ci ñoom fi ñu dëkk étudiant Kédougou ngir jaale leen li nga xam ne ñun ñoo ko bokk muy alfa Tunkara waaye gis ngeen bi ñu dawee ba egsi lycée Kennedy fu muy jeexee ak euh, ñaari deux voies fas ngay waaj a dem fële nga xam ne mooy place de la nation gis ngeen autopolice taxaw suñu kanam taxaw ba si yàgg mu bàyyi auto président Guirassy jàll mu bloqué ñu taxaw ba mu neex leen ñuy def auto ñuy dem ci auto dem euh, dem ci auto bu nekk di xool ku ci nekk di jël ay numéro plaque d'immatriculation moo tax may waxaat fii ci kaw ci kaw ci ne lépp lu dal leader yi nga xam ne ñoo fi nekk président Macky Sall la lépp lu dal seen auto président Macky sàll na ndaxte xamuñu lan moo tax ñu doon benn bennal oto yi di jël plaque d'immatriculation di xool ku ci nekk ñoom ñu ngi sol ay kagul ñenn ci ñoom ñu ngi sol ay kagul waaw koo xam ne yow amoo fit jàkkaarloog nit looy jàkkaarloog nit looy jël plaque d'immatriculation am donc ñu mettons en garde le président Macky Sall lu dal leader yii mooma lu dal oto yii mooma te dootuñu nangu li nga xam ne moo daloon daam muy dawal otom ñu koy tiire di ko tiire ay bal duñ ko nangu et nous prenons à témoin l'opinion publique nationale et internationale bii oto président Guirassy rombe ñu euh, euh, ñu bàyyi oto Yacine Fall ak defe naa oto Marème Sora jàll ñu bloqué waat ñu bàyyi ñun suñu oto ñu jàll ñu bloqué waat donc lii muy tekki mooy seen taxawaay moo nekkoon pour ñu tas cortège yaa ngi di fàttaliku amoon na fi meeting ak APES ñun ñëpp ak président Ousmane Sonko demoon fa ñu jóge ak APES ñu ñibbi ci VDN bi takk der yi fees dell ci VDN bi ñuy dagg cortège bi benn par benn pour bañ maanaam oto yi àndandoo donc dama bëgg askanu Sénégal xam li nga xam ne moo xew ekk lu ñu dal ñoom la ci jamono campagne la ñu nekk fekk conseil constitutionnel joxewul àtte ci recours bi nga xam ne député Yewwi Askan Wi Ayib mu ngi fii sama ginnaaw tonton Ayib fekk conseil constitutionnel joxul décision bi joxul dogalam ñu ngi ci campagne électorale donc ñun coalition Diomaye président euh, li ñu waxoon démb moom la ñu jëfee tey dañ leen waxoon ne dinañ wëyal campagne bi ba keroog conseil constitutionnel wax ndax askanu Sénégal moo am dëgg ci ne élection par la force léegi ngeen commerçant yi ci HLM nee nañ élection par la force nee nañ élection day am nee nañ kenn du randal élection loolu la askan wi bëgg c'est ça la profonde aspiration du peuple sénégalais loo ko wax leneen diversion la tey sax ñenn ci yéen ñu ngi may laaj ci yeneen tomb man ne leen xanaa déggu leen askanu Sénégal lu mu wax askanu Sénégal waxul benn baat bu dul élection par la force kon bu bu leen ñu laaj leneen askanu Sénégal dafa ne kenn du randal élection kon bu leen ñu laaj leneen parce que li askan wi bëgg la ñu war a wax askan wi mooy ñun ñun ñooy askan wi ñun nee nañ élection par la force 25 février day am élection coup d'état bi duñ ko nangu duñu nangu dem 15 décembre 2024 donc lii moo nekkoon euh, li ma bëggoon wax di gërëm waa HLM yëpp di gërëm euh, mes commerçants HLM yi euh, di wax étudiants yi nga xam ne mooy les étudiants de Kédougou yoon yemul ci benn police moo ñu tere tey ñu ñëw foofu waaye coalition Diomaye président du coalition bu ñuy xoxatal du coalition bu ñuy tiital du coalition buy dellu ginnaaw ndaxte dem jaale ay étudiants du crime du délit di wax askanu Sénégal ne ginnaaw tey dem nañ euh, fële nga xam ne mooy marché HLM ñoom ñëpp nañ ñu déglu nañ ñu xaar waxtu yii di ñëw fan yii di ñëw dinañ xool naka li ñuy demee seeti Sénégalais yëpp di naqarluwaat waa aar sunu élection li ñu leen def interdire sen manifestation du dëgg du yoon di ko naqarluwaat gis ngeen fii la ñu woote woon askanu Sénégal yëpp ne na ñëpp mobiliser wu. ndaxte manifestation aar sunu élection mooy suñu manifestation ñun Diomaye président mooy ci yoon euh, manifestation wu mboolem démocrate citoyen sénégalais boo xam ne jàpp nga ne Sénégal warul am coup d'état Sénégal warul am putsch Sénégal warul nangu président boo xam ne ginnaaw bu mu defee coup d'état constitutionnel mu bugg ñu yóbbu ci coup d'état militaire donc ñu ngi koy ñaawlu euh, dégg naa déposé nañ tey euh, pour def manifestation samedi en espérant que bii pas dinañ ko autorisé waaye ñun jomaay président li ñu war a def dinañ ko def waxtu yi di ñëw dinañ leen wax lan mooy beneen en fait en fait programme bi ma bëgg a daanelee benn rek président nga jéggal ma Ousmane Sonko ku yàq deram di ko defaraat ku yàq ay waxam di ko defaraat weer yii passé waxoon naa ko France dama koy waxaat fii weer yii passé président Macky sàll dafa yebal ca kaso ba dafa yónni ay nit nit yooyu waxuñu président Ousmane Sonko ne président Macky sàll moo leen yebal ñu dugg ci kaso bi ne ko dañoo bëgg nga am liberté waaye nga génn Sénégal xaw ma ndax dégg ngeen ma dinañ la génnee kaso waaye dangay génn Sénégal balaa ñuy gisanteeg moom ci biir kaso def nañ lu ñu mën ci biir hôpital ci biir grève de la faim bi pour mu recevoir leen mu ne moo lànk ñu ne ko Ousmane Sonko dañoo bëgg nga génn kaso da ngay génn senegal nga génn kaso Ousmane Sonko ne leen feebaruma génnuma senegal ñu ne ko dangay génn senegal dem faju ji waaw dinañ wax askanu Sénégal ne da ngaa feebar dañ la génnee Sénégal génne la kaso pour nga dem faju ci mu ne leen man feebaruma lenn rek moo ma dal sama ñànkatang laa nam damaa gëj lekk te ku gëj a lekk boo ko xoolee dinga ko xàmmee mu ne leen génnuma Sénégal ma buggoon nag wax patriote yi wax askanu Sénégal fi ngeen jàpp ci Ousmane Sonko foofu la bu leen teggi seen loxo bu leen teggi seen tànk te sonkoo waru waruñoo gën a gore bu nekkoon keneen nangu na génn Sénégal mu ne man génnuma Sénégal bu dee condition bi pour génn te amul lu ma def mooy génn Sénégal génnuma kaso loolu nag am na ay weer pexe yooyu président Macky Sall nekkoon ngir génnee président Ousmane Sonko ca kaso ci pexe yooyu la nekk ba tey moo tax ngeen di dégg baat yu bëri dama bëgg bu baax ngeen dégg ma baat yu bëri ngeen di dégg moom mu ngi toog fu mu toog rekk waxagul dara mënugul wax pexe yooyu ñu nekkoon pour génnee ko kaso génne waale ko Sénégal niñ ko defee woon pour keneen président Macky président Ousmane Sonko lank ba tëdd ci suuf ci pexe yooyu la ñu wëy ba fan yii passé waxtu yii passé ngeen di dégg ay baat yu bëri naan lii am naag lii am naag lii am naag loolu noonu ngeen di wax bi mu commencé yàgg na te président Ousmane Sonko dafa lànk dafa bañ président Ousmane Sonko c'est un homme de refus c'est un homme de principe président Ousmane Sonko du kuy daw gisuma lu muy daw du kuy ragal gisuma lu muy ragal donc moo tax ma bëgg a patriote yi ñu ànd ak dal ñu ànd ak teey ñu ànd ak tek wax bu jotee wax dina jib bu ma leen ñamalee loolu rek ngeen war a xam ne kon bu kenn jaxle bu kenn caalit bu kenn faale waxu kenn bu kenn faale xawma euh, post Facebook kenn bu kenn faale li nit yi di wax rajo ak télé di jéem a yàq deru Ousmane Sonko léegi nag askan wi dafa mobiliser wu ne maa lànk maa bañ du ñu def coup d'état du ñu randal élection loolu moo tiital président Macky Sall ba bugg fi indi diversion ba naan xawma ay amnisti ay dialogue ay leneen c'est de la diversion ñun li nga xam ne ci lañu ñu war a focus mooy ci lu ñu war a focus mooy élection day am vingt cinq février président Macky Sall 2 février 2 mars 2 avril jeexal na ci bopp réew mi bu génnewee Ousmane Sonko moo ko war bu génnewulee Ousmane Sonko génne ko moo ko war bu libéré les mille et quelques détenus politiques moo ko war bu bu leen génnewul moo ko war ndaxte da leen jàpp ñoom ñëpp ci loo xam ne du dëgg du yoon ñun nañu focus élection présidentielle 25 février nañu focus ci 2 avril mooy bés bu mujj ci président Macky Sall 3 avril nag du ko fi fekk bu ko fi fekkee ñu dem déloger ko palais moo ko waxoon bu ko fi fekkee ñu taxawal gouvernement d'union nationale de transition lii mooy ordre du jour bi désobéissance la désobéissance civile continue la résistance continue contre le coup d'État du putschiste Macky Sall qui nous a annoncé qui nous a